boo ñëwee ba fii nii si passerelle bi nii am client bu demandé arrêt ma taxaw di ko wàccee bon bi ma taxawee dama jékki-jékki rek gis ñaar deux personnes génn yor ay xeer ay ngandi xeer ah léegi taxaw jàkkaarloog man face à face may saaga bon bi ñuy saaga peut-être maa ngi gis beneen gain bi yor flamme bi quoi taxawee à côté. mooy cocktail bi mais mi ngi takk flamme quoi.

da iphone kalan da non jol iphone kalan da da no camoufler non sen beuri rek mo lay jox image da bu waxe yang koy deg ni pensé porte bi porte bi ubeku am ni dal jël dug ci bir am na jël ay téléphone ak ay sac man bima wacce ma len sen bi ni bi ni yegal passer ak di demone ma len sen sen yegal ni jaar ni def sen Thank you.